ñu jëm si ci dëkk yoo xam ne tàmbali woon nañ ko 2017 ci xalaat ak ndigalul sëriñ Sidi Mokhtar mi fi nekkoon ci jamono jooju di sëriñ Touba mu am mu ko tudde woon waxoon na nañ dem dekkaliwaat taali jàng yi nañ dem fenqalewaat girin yi waaye nañ yóbbu nag wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wa laa tafarraqu loolu rek moo tax karawaanu Màggal Tuubaa jóg mu jox ñu ndigal ci bu ngeen dee dem bu ngeen jëm na ngeen wax ak ka fa yor kàddu wax fa ak kay ilimaani dëkk wax fa it ak kay président daayira ba joxoo fa ak ka fa yàlla teg ci wàllu adduna su ngeen waxee ak ñoom soog a dem su ngeen demee këru diine bu ngeen fa fekk na ngeen fa dem jokkal ma fa bokkum lislaam na ngeen dem jokkal ma ko pas-pasu bu yoon wi yeneen yi bokk yu ngeen fa fekk te bokkul ak ñoom pas-pas na ngeen mas defal la ma lislaam sant mooy maslaal naan ñoom lii rek moo tax karawaan màggal Tuubaa jóg ñu ñëw nag fii ci gaar di sant bu baax sëriñ Modou Ndiir bi nga xam ne keroog bi ñu jokkoo ak ba léegi mi ngi yor oto di dox di yéeg di wàcc te ñu ak mbooloo bi mu waxoon ñu nag ci dëkk bii nañu waa Bambey séeréer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 bala ngeen a mën a xam seen seeni borom bala ngeen a mën a xam dara da ngeen aarifoon yi xam la am taabudoon yi bala ngeen a mën a jaamu yàlla da ngeen di xam yàlla ba la na ne ana nan ngay a jóge bala ngaa mën a dem ndakaaru da xam fa yoon ndakaaru ne xam ndakaaru lu fa jëm Sëriñ Tuubaa daal xam loolu tax mu jàkkaarloo ndaw ñi gis nga bi Sëriñ Tuubaa yi waxee ndaw mi ak bi ko ndaw ñi wuy see xefat xeppi la matut baat matut ñaar nit yàlla ku ne daa nga ñaan yàlla bala laa yàlla may nga génn àdduna say sët da koy fekk boo xoolee ci yonte yàlla ibrahim ba muy ñaan ca makkatal mukarram ñaanam nga bi ko yàllay nangu ibrahima fekkiwu ko sëtam yu bari fekkiwu ko waaye kenn naata lu ne yaay am ko yàlla la ko Sëriñ Tuubaa nag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 may liggéeyal Moustapha ba mu takkal ma garaatub xaadimu rasulillahi dallani allahu ala muhammadin waaye nag waxaale nii muhammadun li sama yàllaa ma tegtal yonent bi ni mu ko tegtale ñépp ma wuti yonent bi di ko liggéey ba la yonent bi jàpp sama la moo xam nag wér du yor kenn nattab li wut ne am na ñun joxoon wér du xaadir moom lañ yor ba niñ génne àdduna moom la ñuy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 Serigne Touba dafa dajale mbooleem jaami yàlla yi nit ñi daan jaamoo yàlla mu tëxañ ko ci xaside xasidaan yi xaside góor ci jot yuusilu xatti man ahabba lil ilaa bi xayri xalwatin wa yakfi kula la nee sama xaside yi boo ko jëlee dalay àggale ci yàlla ci lu dul ngay dugg xalwa wala ngay sonn iza katabtu ihtasama shalbaaxi wa sabbahat malaaiku tibaaxi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 li muy gën gën ci nit ak jinne ak malaayika téewut nag aadama jiitu ko na ko maay sa aadama na ko maay sa te bi ñuy bind aadama Moustapha tax waaye téewut doomu aadama la gis nga ku dul aadama doomu aadama la boo dul malaayika Moustapha doomu aadama la sallallahu alayhi wa doomu aadama la aadama nag leeru yàlla la ndax xawaa doo dégg ñu am doomu awaa déedéet doomu aadama la ñuy wax ndax xawaa aadamaa ko jur daa bokk ci doomu aadama yi moo tax doomi aadama rek ngay dégg adamaa jur ñëpp waaye Moustapha gën ñëpp soxna jaara ci boppam nee na bi ma àndee ak Abibulahi ca feeñagut bu takk san masa jot ci àll bi laay dem ndax du ma ñemee toog ci kër gi lan mooy tax muy dem ci àll bi waqaf bi muy jàng day day ragal nit ñi dégg alxuraan ji muy jàng te moom muñ ci biir soxna jaara te moo toog sëñ Tuubaa Cheikh Rafal bi ko sëñ Touba yabalee xuru mu bay fa gerte gam njëkk a bay ba mu koy yóbbu njaareem ñu koy déqi gerte ga daa xurum benn doom mënut a ànd ko goñ ñu ñëw ci maam Cheikh Ibrahima Fall na ko tool daa xurum mu na lu ko waral ñu ne ko suuf sa daa dëgër mu ne ah doom suuf saa yey suusu sëñ Bamba jànge raam mënut a nooy dafa dégg sëñ Touba sëriñ Touba képp koo dégg muy wax ci sëñ Touba dara. daa gis nit ci gisut sëñ Touba waaye ku gis sëñ Touba doo ko sikkal moo tax mu ne bu ngeen di dem yóbbu leen ma te bañ yóbbu seen bopp sëñ koo yóbbu ku dul sëñ rek problème am ci Moussa Ka nee na sëriñ tubaa mu ne ko sëriñ bee di géejug yàlla naxtil ba mel na ñeex sëriñ boo lambaaje booti biram moo andi teex sëriñ Touba la yàlla bind sarafa tooñut moroomam tooñut boroomam nee na waxuma la sama morom wala sama borom waaye lu yàlla bind ma xam ne mbindaa fa mu yàlla nga la mosuma laa tooñ aw yoo mosutal dal ci sama ma tàpp ko aw fen mosumaa yéeg ma faxas ko ba di ko rey aw tàngaay mosumaa jàpp ba ma upp nee na nelaw mosuma koo xaar fi barab te fu ma fekk bàyyi naa ko li gën a garaaw Sëriñ Tuubaa nee na dafa am yu ma jaayanteeg yàlla te loolu yàlla daganal na ko ci nit te sibu ko sëñ tubaa nee na loolu maa ko yëgal sama bopp moom ko ma xam ne lii yàlla may na ma ko ma ne ko dama la koy jaay loolu mooy lan mooy ñàkk a yëgati bànneex bu dul yàlla bëggatuma am benn bànneex bu ma yëg bu dul yàlla moo tax mu ne du ma xasenoo xasenoo nee na su ma xasenoo danaa yëg neexitu xasenoo moo tax bu ma bu ma xasen bu ma xasanee du ma xasenoo dama koy jaayanteeg yàlla jomb na maa jël sama loxo di wokk samay we bànneex boobu da neex na koo xam ne xasan bu la xaaxaam gu sax jàppoon ba nga wekki ko ni muy xasane doo yàkkamti li weesoo xasan ko sëñ Tuubaa nee na bu ma ko xasanee danaa yëg neexi te bëggumaa yëg neexi di wut yàlla ma jaay ko yàlla duma ko du ma uppu du ma uppu ma wantaay ñu ne mu ne bu tàngee ba tàng jër ma yëg naa yàlla ne ma boo uppoo mu neex wala boo gënee ma ne ko dama la koy man du upp li yàlla jaral sëñ Tuubaa la mus ta jaral nit moo tax yàlla jiital ko ci kanam jaam waaye amu ko ci tool de da koo am ci xaw a ci fukki atam ak ñett la yaayam génn adduna mu ànd ak amul fu mu toll mu ñëw mbàkke ba mbàkke bayri wala mbàkke kajoor baayam génn adduna sëriñ bi demul ba ñëw di ñu dig di ñu dig àjjana demul ba di ñu dig teraangay adduna bi mu daataaka dem ci géej gi 1884 la sañ ci Daaru Salaam 1884 la sanc Daaru Salaam 1886 la ñaari tawam gane àdduna 1887 la boole maam Cheikh Ibrahima Fall ak mbooloo 1886 la ba la boole maam Cheikh Anta ak mbooloo 1886 la jox maam Cheikh Anta ab dëkk 1886 la wàcce sëñ ma Diop sëñ Massamba Diop Sam ci la wàcce sëñ Darou Assane Ndiaye ci la wàcce sëñ Dame Abdourahmane Lo ku ne ma bo mu seexal la boole la ak mbooloo début ba ñëw soo ko seexalee bi muy dem ci géej gi leneen la doon wuti waaye wuteetul beneen cër mu liggéeyal yàlla nag liggéey boo xam ne fi ma koy tënki te màggal gi nee na juróom-ñetti at yu tuuti ma ne kook tubaab yi ci diggante Lambaréné ak Mayomba dem nañ Gabon nekk Lambaréné war a dem Mayomba bi ñu téléphoné Mayomba colonel ba fa nekk xamal ñu ne ñu avion bi mun a ñëw maa yomba tey ndax jaww ji neexul nga xool 1927 wala boobu 1895 jën yóbbu sëñ Touba maa ba ñun dem ba 2007 ñun ñu dem Gabon mënuguñ faa mënuñoo dem maa yomba kon ba fa sëñ Touba dem na maa yomba mel juróomi at ya ko fa tubaab ya def sëriñ Touba réer leen ci maa ba gisuñu ko ndax ñaari at yi la ak tuuti la def ci biir Gabon yëpp waaye 5 ans yëpp maa yomba la ko def sëriñ bi nee na looca bi ma yóbbu maa yomba looca bi. ñetti soldat la ci ne ak samay bagage booba lu ci tubaab bi jublu nañ ko sànni génn ci moom te buñ ko yóbboo iilu maayom ba duutu del si ndax foofu nit ku fa dem sa faatu la ñu jël bagage am yépp na ko doo del si nañ la fa yóbbu bañ demee dañ dañoo taxaw looca bi dafa taxaw na sëñ tubaa wàccal sëñ tubaa wàcc gisul lu dul ay montagne ak ay garab ay gordu ay gaynde ay segg ay jinne àll bu lëndëm ñu ne sëñ tubaa wàccal ak say bagage sëñ Bamba képp wàcc ak i bagaasam yéeg ke montagne ya ñu dëpp ak loote bi nee na dara luy nit luy nuru nit wala luy nuru lu nit dafa rombaatu ba fa juróomi at sëriñ Tuubaa képp ne fa di tagg di tagg rasulullahi salaatu sitta bi mati sitta taatihi batta maa atisaa yi jaayante Moustapha juróom benn weer yi dama koy liggéeyal yi juróom benn weer dama koy tànn jërëjëf damay wax ne murit yi mën nañoo wax ne rëy nañ aw làmmiñ mën nañoo wax ne bari nañ ay wax waaye duñ wax lu sëñ Tuubaa deful sëriñ Moussa Ka nee na ngërëmul yàlla murit yuy daw araamut ku mën na ko def sibee su ko fii ci yaasin juróomi ati sëñ Tuubaa ci maayom ba bi xamut ci moom dara ki mu àndaloon xamoo ci moom dara ba tubaab bi naagoo ne sëñ tubaab faatu ñu bind lettre Sénégal yónnee ko ak njabootam ne leen sëriñ bi génn naa àdduna boobu tubaab bi naagu la ci sëriñ bi nee na juróomi at yi ma def maa yomba damaa defe woon ne yaari guddi guddi li ma defe ne yaari guddi la bi may soog a ñëw maa yomba dama am xasida gu bi ma fi amee juróomi at nag may xoolaat sama bagage gis xasida googa bi ma ko datee ak boobu muy juróomi at man a man dakate yàgg na ma daaneel ndax fi ñu jëm dafa des lii li tax ñu yaatal ko nii mooy li ñu fi fekk lii duy caaxaan jumaa ji ku ko xool ñu ne ñaqu baykat moo tabax loolu la sëñ Tuubaa santaane jaamu yàlla ak liggéey gabon sëriñ Tuubaa nee na bi may ñibbisi nattu bi ma tubaab yi mujj a teg dama am benn xew xale sama xarit la woon ñu di ko wax Moustapha Thior taalibe Moustarchidine la woon navigateur la woon da daan ne ci bato yi dem dama ko ñëw daf maa ma sa wax ne ma fàllu ma ne ko mbàkke mu ne ma maanaam il wiir wiir wiir wiir léegi seey na amatul il ba ndox mi lekk na waaye ba mu boo fa masaa jaar ñu ne la fii yóbbu nañ fi ab sénégalais nee na doo doo téye say ruqam da ngay jooy ba ni koy rombe ndax la lëndumaayu il ba ak ak soriwaay ga ak ak ak ñaawaay ba Serigne Touba ñibbi tubaab yi jël ko nee na natt bi ñu mujj a teg ak man fukki officier ak ñaar lañ jël fukki officier ak ñaar ak benn capitaine kenn ku ne jox la balu fetal ne la bal bi yëmut ci mën a rey waaye dañ koo tookee kenn ko ne dàkkal cër sàngam ci Ahmadou Bamba nga fetal ñu koy def it yàllaa leen weer dañ ne dañ koy def quatre heures ñu ne leen dañ ko bàyyi ba cinq heures def ñu fab sëñ Tuubaa ko ak garab marale ko ak garab ga yeew ko bam ne ngodd fukki officier yooyu ak ñaar ak benn capitaine Sëriñ Tuubaa ne lii bu ma ko nettalee murid yi dañ koy gëpp dañ koy weddi naa ko bind wahaba lil wahaabu fi sulaasa maa yox jilul asrata wa salaasa ñun duñ neel sëñ Tuubaa lu ñu def rek dañuy wax yàlla mi maye may na ma ci bisu talaata bi lu fukki nit ak ñett yooyu ndax lislaam bam sosoo ba fi ne gis nañ ku xam ne li sëñ li sëñ li li lislaam jaral sëñ Tuubaa jaral na la ko seen ma bandoo te du seen maas mm-hmm. na allah bi muy bi muy dem bi waxtu takku sanam di jot ñun ñii nga xam ne ñoo ànd jóge Touba l'islam may nañu buñ amoon juróom-ñaar fukki kilomètre ak nangam rek ñu wàññi suñu julli diine la ko may bari na ñoo xam ne dañ koy jëfandikoo am na ñoo xam ne sax bu leen waxtu fekkee ci oto bi dañ koy ba àgg Serigne Touba waxtu fekk ko ci bata bi moom yaar am na amul place bu mu jullee xamul fu penk féeti kooku am na ngànt mu ne bëgg bakkan su ma teexaay ma faat waxtu yàlla wi su ma jàkkaarloog yàlla mën naa koy wax yàlla bind géej gii muy mbindaa fon comme man ayaa baxru laa tusallit la ko suñu baax waxoon mu ne man naa jaamu ci yàlla fu bakkan bi dem baax na ndax bu ma ko defut sama bopp te bëgguma àdduna ma weddi sama bopp man maa waxooloon ne xarajtu yawma sabti saamina asar li xidmati lmuxtaari fii sahri safar ginnaaw maa waxoon ne génn naa ci bisul gaaw bi di fukki fan ak juróom-ñetti safar ngir liggéeyal Moustapha lu ma def lu dul liggéeyal Moustapha rek dama koy bàyyi foofu nag ku fi masaa toll te doo sëñ Tuubaa sa bakkan di bëgg a wax de diine yi bëgg a wax de wàcc nga diine aw sa bakkan am ñoo xam ne nag yàlla day aw diine bàyyi ñu jël seen bakkan sëriñ Tuubaa nag nee na bi diine bëgg a wadd sama bakkan bi bëgg a wadd damaa bàyyi sama bakkan awal yàlla diine mu aw sama bakkan aw diine moo tax jàkkay jàkkay ndox fu ne mën nañ koo tabax ci àdduna bi waaye jàkkay ndox kenn du ko tax sëñ Tuubaa rek ko julli ba yàlla wàccee julli ci Moustapha sallallahu ba nëgë ni ku mas julli ci ndox ku dul sëñ Tuubaa amoon te loolu dama ci joxe firnde Aliou Ndiaye Mbàkke la dëkk ay dara Ndiaye mais xam na ko mi ngi Mbàkke faatoogut sëriñ Abdou Lahad da ko woo 1966 sëñ Fallou yónni ko Côte d'Ivoire ñu dem Côte dëpp sëñ Abdou na ko damay jaar ci ndox mi ñu ànd dugg ci bato bi moo ma ko nettali ci làmmiñam nee na bi ñu jógee Guinée jëm si Sénégal sëñ Abdou daa mel ne diggante boobu ay yamba koy matt léeg-léeg mu ñëw yërëndu ndox mi del si waat toog na ma Aliou Ndiaye laajal ma ba xam tubaab yi am nañ liminaat bu weex wala dee nee na ma dem jëndal ko bu weex del si waat bu toogaatee lu mot waxtu day ñëw yër ndox mi jël si waat na ma Aliou Ndiaye dama wutal ma liminaat bu neex bu na bi ma néew mu ne ma fii la sëñ Tuubaa julli woon bi ma ko xoolee ku tubal bu xonq cooy la def waaye yéen soxna sëñ ci góor ñi fala soxna Mariama Bousso jaar ci jigéen am ngeen roy waay sëñ Tuubaa yàlla koo waajal ci ndey waajal ko ci baay fukki fanweeri at ak ñett la soxna Jaara dund benn doole wuuti te am na fukki at ak nangam soo ko dem ci kër waaye liggéeyal na fa yàlla ba ba àdduna tukki liggéey boobu dootu takkaayu maa gën xeet ci sama borom kër maa la ëpp maa la gën a dege ci temps mayewu ko xam nga lu ko maye topp sa ndigalul borom kër ak xaw a dee loolu rek a ko maye kon sëriñ Modou Mbacké Sy moom day waxal na boppam ci ne du ma ndaw lu yaafus de buñ ma yónnee lu ma gis naa ko wax te sëñ Touba moo ma yónni te ndaw lu ne nag dara jey ka ko yónni la yor doonte ñëw ngeen gis jëmbam ji te mat na ndaw Serigne Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma Serigne Cheikh Bachir fam liggéey bi teg ko ci loxoom su demee ñi la ko nettali nee na bi ci njëkk mooy dégg na jafe-jafe yi ngeen wax muy poor ba loolu jërul jàll sëñ Muntaxa jafe-jafe jërul jàll ci sëñ Tuubaa sëñ Muntaxa sëñ Tuubaa mooy solution lu solution rëy rëy rek sëñ Tuubaa solution lii fi daje ci ay murit te daje wuñ fi ngir seen baay li fi daje ci diine tijaan yi toog xaadir yi toog laayeen yi toog ibaadu rahmaan yi toog ñu ñëpp ñu maasi jublu penku teewlu yàlla waaye sëñ bi xajuñ ci jafe-jafe bu ñu ko teewloo fii lay saafaroo mën naa ko wat sëñ Tuubaa jëru dem sëñ mu doxaa tudd leen jafe-jafe yi rek mu tàbbi ci noppu sëriñ bi sëñ Tuubaa koy dégg